sama dund gii may naa ko may naa ko may naa ko jullit ñi may naa ko nit ñépp lépp lu ma waroon am muy fii ci àddina na ko jullit ñi am te man ko te ma bañ ko am ndax ba ko sëriñam kilifaam maam Cheikh Mbaye di yebal kokki muy 1939 daa nekk jamono ji metti jamono ji jafe ci foo xam na fii dëkkoo ba fekkoo fa baax waaye def ndigaleel kilifaam jaral na ko mu dem ànd ak ay jafe-jafe yu metti yoo xam ne nii doon na ko dund te jafe-jafe yooyu dafa am ay mbokk yu ñëwoon di mu nekk ci 39 ba 1970 71 72 am ay waajur yu baax yu ñëw dikk jàppale ko ci liggéey bi ñooñu nag su fekkee ne ngor ba ngi ci nun amuñu benn ndaje mu nuy wax wala mu ñuy def rek te tudduñ leen muy suñuy baay alaaji ma xari géey alaaji aatu xulle alaaji ma tawas jóob alaaji njaasi amar alaaji mooju saadi alaaj Seex Jóob cil maxa ca mbaakol alaaj mu jaxate ca ndànd góor gi moon njaay baawo ca Luga bàyyi alaaj géey ca Luga ak alaaj Moodu géey ca Kawlax ak soxna Fatou Fall Njaga Asan ak bàyyi Tafsir Jóob ci Barñe ak ñeen ko bokkoon àndal ñépp yal nañu leen yàlla fayal ñii ñoo ñëwoon daroon sëñ mat saxiir jàppale ko